yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa loolu lépp lépp yeneen yëngu yu mën a doon lépp mi ngi ci biir loolu xasida yi moo jiitu lépp mooy sëriñ bi waaw ku bëgg eh, sax dakk si bégal sëriñ bi da góor góorgóorlu ba eh, jëm ci xasaay di ndax di mooy sëriñ bi mooy diggam ak boromam diggam ak yonent bi diggam boppam xasida yi gënul loolu loolu eh, bi diggam ak na lool kenn su sax ab ab yemuwaayam eh, loolu nag moo tax liggéey bi ci liñ mën a gis nii nekk ci ñun ñëpp di ci yëngatu loolu loolu loolu loolu li mu yaatu yaatu yëngatu boobu nga xam ne ñëpp ko bokk képp euh, soobu nga euh, Sëriñ euh, ak ak goo ci mën a féete te mu dëggu loolu mooy liggéey bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy yaatuwaay bi waaye lay tax. lépp ñu mu nu ko ngërëmal euh, sëñ bi mooy xasaayit yi eh, yéen tawfeex jure ji nga xam ne am ngeen ko suñu borom ngeen xëy leen ci boppam xëy leen ci seen Tuubaa wala di ko xiyaar leen ci xasaayit yi da nga xam ne yéen yéen a yéen a ñi nga yéen ñi dundee dëggu ci yéen muy seen dund ngir Serigne Touba di ko liggéeyal Serigne Touba loolu ni ñu ko mën a misaale mooy yuur yuur ci nit ci bopp xasaay dañ mooy yuur loolu mooy di gën a gàtt xam ngeen ne yuur moom bopp moom mooy lépp loolu nag noonu la xasaay di demee ci nun ci nun noonu la xasaay di demee ci nun am ma tolluwaay bi itam damay wax ne leen nu weesu lépp kilifa yi suñ kilifa yu baax yi fi nekkoon dañ doon sàmmal sëriñ bi rek ndax booba ñun ñépp ñëpp ngi ci moo jiitu bi sëriñ bi feeñee ñëpp dañu rët ku rët amul atte bi mu toogee ba ñépp xam fi mu jëm dañu am barke barke barke boobu boobu ko boobu nag wàcc ci noonu barke boobu mandi loonu danoo mandi danoo li ñu weesu lépp mandi si la mandi nag amul mandi la nekkoon léegi nag alhamdulilah ku ku képp kuy kuy kuy naan itam lool naan naan naan naan fokk da nga xaar da nga dem ba sa mandi terees nga nga nga wëlbati ko xool di ka nga doonoon di gis la nga xam ne mooy lay dëgg-dëgg yi nekk fii dellu si sa bopp it xalaat ba xam yow mii ci loo ne ak foo nekk foo nekkoon ak lu ci li nga nekk nu mu demee loolu xalaat yooyu nag alhamdulilahi rabbil alamin tollu nañ ci tollu toll nañ toll tolloon nañ ci ba kon dafa mel ne mandité moomu nag léegi ñun ñëpp dellu nañ ci suñuy xel di nit di nit njaay di jëfandikoo ni ni ni doomu aadama baaxoo jëfandikoo ci nitam loolu mooy tollu ay sii weesu fii nu toll nag alal des mooy nu xam nag nooy kan nu xam nooy kan ak ci lan ci lan lan nekk xam nooy kan mooy nu xam ne sëriñ bi ci boroom rek biñ ko gisee ba ñu ko noppee gis ci boroom rek la nekk diggam ak bi ndax digal la mu am ci boroom tëlu fi dara dara dara dara dara loolu boroom ak bi loolu nag lépp nag yitte jooju ak jëf jooju yooyu yëpp mi ngi ko def ci xasaay xasaay bi ko sotti ci xasaay kon xasaay bi moom man la demee ci suñu bon ko seet ci suñu bopp mooy mooy mooy yuur gi nekk ci suma bopp mooy defar lépp kon am ngeen tax fee juree ngeen tax fee juree bi leen yàlla xiiree boole leen sëñ Tuubaa ba noppi ngeen bokk mbooloo bokk ak mbooloo mi ñëpp sëñ Tuubaa yàlla xiir na nag ci xasida yi ngeen dugg bëgg ko dunde loolu tawfeex ju la tey loolu mën naa yóbbaale lépp ci aju yëpp nga xam ne kenn ku ne ma nga dañ bu dëgg sëñ Tuubaa dëggu ci yow yaa nga dañ sa bopp ci na nga mën ak la nga xam ne ngir sëñ Tuubaa loolu lépp nag seen taxawaay boobu ci xasaayid yi mooy moo moo moo moo yor lépp waaw moo yor lépp moo yóbbaale lépp waaw eh, ci suñu diggante sëriñ bi nag fi ñu toll mooy ni ma ko doon waxee ci manate mi eh, léegi eh, dellu si seen xel dellu na seet nañ suñ bopp lañu xale nit ñi baaxoo lu ñu xam baaxoo euh, nekk loolu dañu leen suñu di fi loolu leen suñu nag di di nit waaw kon dara desu ci woon kon xam mu xam nag kon li nekk mooy lan ak fu ak fu jëm li nekk du weesu mënut a weesu mukk jéem a xam sëriñ bi mënut weesu mukk jéem a dund sëriñ bi Eh, ginnaaw sëriñ bi nag biñ ko gisee biñ ko noppee gis ci borom rek la nekk eh, ak di gëm ak bi eh, ci loolu rek la nekk biñ ko gisee biñ loolu rek la na fi bàyyil loolu rek la na fi bàyyil li ci des lépp dara dara yitteem jooju rek moo na fi bàyyi kon nu di ko jéem a xam li ko fi indi woon ak li mu fi nekkee woon ak li mu nu fi baal du dara lu suñu yite yépp suñu xel yëpp suñu xemamteef yëpp suñu jublu yëpp ñu jublu ko yàlla maanaam loolu mu jubloo ko Serigne Touba lépp mu fab ko juba jubali jublu gépp li Serigne Touba ci wàllu liggéey bu liggéey bu lislaam bi nga xam ne ci la nekkoon nekkal ci borom nekkal ci yonent bi euh, jëmmi liggéey ba moom wësul woon euh, nit ñi dugg ci lislaam nit ñi dugg ci lislaam gannaaw diggam ak boromam ak ak yonent bi ba noppi la ca dolli rek mooy bëgg jàmm ñëpp dugg ci lislaam kon dafa mel ne bi muy ñëw gindi si jaam ñi gindi leen seen borom wammat leen jëmale seen boroom loolu rek la nekkoon loolu nag mi ngi fi du fi jóg mukk loolu dana kon li may fàttaloo seen seen taxawaay bii li may fàttaloo rek ci ni ma ko waxee ne fii nu toll nag dafa jóg dafa jot nanu dellu si nanu lu ngeen dana màndi woon te mandate mi set wecc ci ñun nag te mu jóg xam li nu nekk ak li nu nekkoon xam fi nu jëm kon yéen seen taxawaay bii ni ngeen ak ni ngeen di ni ngeen def xasaay di ci nee na ma misaal dama ko mel ne waajtaay wa ëllu badr ba ñu jëm ci bis boobu seen taxawaay bi ci xasaay bi mënu ko mënu ko misaal lu dul tollooy waajtaay woowu wàllu waajtaay wàllu bëdum ne ba ñuy jëm ci bis mooy gàttal loolu yaakaar naa ne mooy ni ko gëstoo da ngeen xam waajtaay wa dara mënu leen dëpp te gis nekk dara nekkatul ci ñoom xamatuñ dara ci seen li nga xam ne mooy la moo leen dëgmal rek seen taxawaay bii foofu laa koy foofu loolu la may fàttali loolu la may fàttali waaw taxawaay waaj lu ma dindi jëm ca bis boobu ñu jëmoon foofa ñu toll woon seen taxawaay bii man noonu rek laa ko gisee waaw noonu rek laa ko gisee ku ne xam na kon ahlu kon <laughs> lan la bis lan la doon ci lislaam waaw yi kon na xam na gën a xam bi ngeen nekk gën a xam ne am ngeen tawfeex ju rëy te itam dara wóoru fi nu fee bàyyi loolu sàmm nekkal sëriñ bi sàmmal ko liggéey bu rëy boobu mënul liggéeyal ba yonent bi ci lislaam du dara lu dul gindi nit ñi wommat leen jëmale seen borom loolu nag la nga fi bàyyi mooy suñu dono ko xamee mooy suñu dono buñ ko xamul mooy suñu dono buñ ko nekkee mooy suñu dono buñ ko nekkul mooy suñu kon nag yàlla nañu yàlla suñu borom gën a gindi moom gën gën noo gindi ci Serigne Touba gën noo gindi ci Serigne Touba li ko tax li ko fi taxoon li mu fi bàyyi ban man gën noo dimbali itam gàttanoon na gàttanoon na ak taw Serigne nekk ci loolu ak li ci biiram lépp dara loolu rek mooy nekk nekkal suñu borom la Serigne Touba nag loolu rek moom la am moom la fi bàyyi moom la mooy suñu dono kon ah sëñ alhamdulilah leen di sant Sëriñ Tuubaa bu baax ndax sëriñ bi lépp faggu faggu na lépp lu mat a faggu faggu na ko digg ma boroomam lu mat a faggu rek faggu na ko di te jiwoon na te boroomam moo ko fi nekkal kon noonu rek la demee nu xam kan muy sëriñ bi. xam lu ko fi indi woon ak ak lu mu nekkoon ak lu mu fi bàyyil weesuul loolu jublu gépp jublu gépp nañ jublu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne boroom rek buñ ko gisee ba buñ ko noppee gis ci boroom rek la jublu gisul leneen ci boroom rek la nekk mosul nekk ci leneen waaw loolu mooy suñu doon nañ ci góorgóorlu suñu bu baax bu baax a baax nii adduna si li nga xam ne doomu aadama jàpp na ne rek li li mu gis rek mu li naa nekk rek xaw xamul leneen kër kër kër kër kër bëgg sa bopp lii la sa bakkan laaj lépp nga bàyyi ko xel bëgg ko bëgg ko lii la sa bakkan laaj lépp nga bàyyi ko xel jox ko jox ko jox ko wàll li adduna laaj lépp ndax adduna bu ko dee wax nit ñee tax adduna du suuf see garab yi nit ñi moo tax ñu naan adduna buñ ko joxee benn xiima nit ñaa tax ngay gis nit ñi ni ñuy def rek nga def ngaa ne noonu la nga daal nekk ca nañ nañ nekk loolu mooy mooy mooy dunduk adduna kër këri adduna la ci am la ci la ci la ci la ci la ci amal njëriñ rek mooy jub yàlla la ci lépp nag suñu fidda rek la lan ciy wut duñ ko tax ñu mën ko am buur bi empereur bi ak président bi ku mën a doon doo am la nga bëgg mukk sa bopp bu fekkee ne adduna rek la tax a jóg da ngay nekk di fitna wopp tiisu kër kër dara du tax nga nga am dara ci li nga bëgg ba dee loolu amul solo jëg taxandi ndax lanu ci amal njëriñ te ñu sañ ko yomb na loolu suñu boom kenn ku ne sa sa sa sa sa ta sa ak sa lu ma doon ci aju ci yow te te nga xam ne moom mu nga bëgg ci sa bopp lépp suñu borom nopp ci doo ci mën a doole dara kenn mënu caa wàññi dara loolu lana ci am solo nag ba maa xalaq jinna wal insa illa liya'budun jaamu dong moo nu fen moom danoo bind di jaamu moo nu fi amul leneen lu ci des li ci des lépp mën na ko waral kenn ku ne am am am sa jër te dara mënu ko fànq loolu jëru sonn waxuma naa nag fab sa dund yëpp jox ko dañuy def ko ci loo lekk loo naan loo sol kër kër fii mbubb yi oto yi fii compte banque yi fii état yi fii loolu dara loolu lépp neen la dëgg la nag bu ñu ko xamee bu ñu xamee ni mu demee daan ko daan ci mën a nekk daan ko mën a jëriñoo waaye bu mu yàqal dara nan ko nan ko nan ko dimbandikoo rek ci li ñu war suñu diggante suñu borom rek la loolu rek la waaw kon mën nañ fee fanaan te li li may li may du yëngu waaye ci gàttal rek ni ma leen ko mën a waxee fii ñu toll ci suñu jamono yii ñu tollu suñu jamono yi ñuy toll fa ahlu badri leen tofaloon noonu wàcc seen waajtaay ba ànd ak ku baax ka jëm ca bis ba foofu dañ fa tollale suñu bopp nan nan fa tollale suñu bopp suñu yitte yëpp nday sëriñ bi ndax sëriñ bi amul yitte dul boromam ak yonent suñu ñett yëpp nag sëriñ bi waaw foofu nag lañ toll loolu nag du caaxaan loolu loolu mooy dëgg te dëgg ak fen rek fi nekk dëgg ak fen rek fi nekk te loolu mooy dëgg buñ ko xamee mooy dëgg buñ ko xamul mooy dëgg buñ ca nekkee mooy dëgg buñ ca nekkul mooy dëgg loolu mooy dëgg su ñett yëpp ñu jéem ko sëriñ Tuubaa te yàlla rek tax waaw yéen nag ngeen sant yàlla bu baax xam ne am ngeen tawfeex ju rëy ndax xasaayid yi noonu ma leen ko waxee rek mooy yokku yoon wi mooy yuur yoon bopp yoon wi kon da ngeen tawfeex la tawfeex nag mooy lu yàlla def ci coobareem yàlla la ku moo ko xam namm ko soob ko at mën ko sañ ko def ko yoonu kenn nekku ci loolu mooy tawfeex kon am nañ tawfeex ju rëy noonu dong la nag bu leen ci bu ñu ci kenn mag du démb du téere yaa ngi fi alxuraan ngi fi ak yi ko jiitu yëpp daara lépp nañ jublu suñu borom nan nan jublu suñu borom waaw nan jaamu yàlla sax ci dàkk li ci des lépp nu kër kër yi fàtte yàlla fàtte bis ci ba fàtte lépp nekk ci suñu suñu bopp ci adduna ji rek defe ne mooy dara du dara kenn ku ci la nga ci la nga ci am foo nekk mu fekk la fa waaye nag yàlla nga lay nekk moom yàlla moom moom lay nekk yàlla moom des koy wut li te lépp suñu mu wutal nañu ko def nañ ko ba noppi waaye yàlla des koy wut kem talaay nag na nga koy wute rek foofu rek ngay mooy sa xim foofu la rawaate bi nekk foofu la gënaate bi nekk ñun ñëpp alhamdulilah la alamin sant bu baax yàlla ñu judd ci lislaam judd juddaal ci sëñ bi wala daal suñu boobu taw fexe lu wamatu ñu ci andi andi sëñ baax na ba noppi waaye nag bu doomu aadama xamee boppam bu doomu aadama amee xamee boppam ni xam ne borom doomu aadama borom yàlla moo ko moo wax ne moo ko teral mu xam nga jooju la yokk teraanga ji ba ba bàjj na loolu rek moo ma tax xam te mën caa la koy wàññi ba yéem ak bàyyi ma yee moo moo rek ma tax daw. من جل أن خاد ارحم جميع الورى